الحمد لله الكريم سلمنا على اعتقادي بفروج وسنن الحمد لله الكريم سلمنا على اعتقادي بفروج وسنن شكرت لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم يوسف الخير بسم الله يوسف الخير بسم الله Mbacke ñoo ngi day saar bu baax jëlal nuyu bu baax baax daayira adama mag yi nekk ci université ñëw ñëwoon di di siyaar kon ni ñu ko defee rek xam naa kàddu yi sax di gudd ndax suñu xaadim moo yor suñu kàddu waaye mbooloo mi moom ñoo nekk ne soxna yeneen nee ñu ñi sees ñoo nekk ne ci ginnaaw Euh, ñëwoon doon def kon nañ ko doon defee rek di siyaare bu baax siyaar gi nag cant rek la ndax ndax ndax ndax diir ba ñuy dox ba léegi euh, liggéey bi dimbale gi ñu ngi ci dimbali loolu ñu ngi ciy sant bu baax Mbàkke ndax ndax gis nañ ko bu baax a baax a baax a baax cant googu rek lañu nekk tamit euh, xanaa li ñuy sàkku ñaan rek. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi waa daayira bi al adabul mardi yi nga xam ne yaa leen ko tuddee muy tur woo xam ne. wu yees pull la ñu leen doon àggaleel waaye li ci ëpp solo rek mooy yi nga xam ne daanañ ko seetlu ci sa liggéey ngay dem ci sëriñ Sidi Moxtaar yemoo ci sa sa addiya rek waaye ngay dajalantoo ay benn benn benn benn yooyu lañ doon dajalaatu kenn ko ne lu mu indi rek bañ koo xeeb moo tax dañ cee boole woon ñeenti kaamil biñ ñëwee rek ngir xataayu béréb bi dañ koo jébbale ba ñu jàllale ko ci biir néeg ba indi ay xasida yoo xam ne mëne mënuñu ko waxu xamuñ lim ba indi lu toll ci ay xad samiha ak ay amayata loo xam ne donga yi mën nañ koo jëfandikoo indi loo xam ne daa ànd ak mbubb ak ak ak kaala moom moom rek mooy wëlis yi teew waaye ya ca des ñu ngi ci biir néeg ba lu mel ne keesu ya keesu orange keesu poire keesu kanet winto carton médicament garab yi garab yi nag xam naa yoon wi daa ñëw sa loxo waaye yàgg nañ ko di indi ngir mu yóbbu ko ci daara ja di ko jëfandikoo ngir gone yi mus moustiquaire moustiquaire bi itam noonu lañ ko daan daanañ ma ko jox naka jekk ngir ma yóbbu ko ca daara ja ca donga yi bii dañ ko jaarale fii lépp nga ci biir nekk bu euh, buteel euh, waaw buteel ordre loolu lépp itam ngir donga yi rek ak buteelu ma daal euh, ñoom nag bi ñu ko bindee ba nag waa mbuur yi tam dañoo ñëw ñuy jugee mbuur indaale lu mel noonu seen yenn yuñ dajale lu mel ne seen ñeenti kawil yuñ indaale ak yi xasaayit ak gëtt yuñ indaale ak ay soccu ak euh, <coughs> super bu ànd ak kuddu ak euh, porte naanukaay bi mel noonu nga xam ne lépp rek ngir dajale la ak ak ñaari sat la yu ànd ak ñaari baraada ak i kaas yooyu itam ngir dajalantu rek ngir roy la ci gis gi gis gi ko daan def loolu lépp itam kàddu yi moom lépp lépp mi ngi ci yow waaw mi ngi ci biir léegi wax naa ko waaw mi ngi ci biir nee na waaw kay jërë ngeen jëf. maa ngi leen di delloo nuyoo bi siyaare bi yëpp. nee na moo ngi leen di delloo nuyoo bi ak siyaare bi yëpp. lépp rek di cant ak ngërëm. nee na lépp rek di cant ak ngërëm. ak di soññ sama bopp rek di leen soññ ni ma ko daan ak di soññ boppam rek di leen soññ kem ni mu ko daan defee. fa tabaarakallaahu sama xol sedd gën naa sedd bu baax a baax ci taxawaay bi. nee na fa tabaarakallaahu sama xol gën naa sedd bu baax a baax ci taxawaay bi. sama yaakaar yi mi ngi ciy dolli ko. nee na yaakaaram itam mi ngi ciy dolli ko. doxin wi itam fa tabaarakallaahu mi ngi ci am mbégte bu baax a nee na doxin wi itam fa tabaarakallaahu mi ngi ciy am mbégte bu baax a baax. kon nag noonu rek la. nee kon nag noonu rek la. gën a gën a góorgóorlu bu baax a baax. gën a góorgóorlu bu baax a baax rek. ci jaamu yàlla sunu kem kàttan. ci jaamu yàlla sunu kem kàttan. boole koo liggéeyal Serigne Touba rek. boole ko liggéeyal Serigne Touba rek. ci sunu lépp nag. ci sunu lépp nag. lépp lu baax rek. lépp lu baax rek. luñ ciy def rek. luñ ciy def rek. nañ ci fasal Serigne Touba. nañ ci fasal Serigne Touba. liggéeyale ko. liggéeyale ko. sax dàkk ci jaamu yàlla sunu kem kàttan. sax dàkk ci jaamu yàlla sunu kem kàttan. wax sax moom lu ci bari yaakaar naa ne xam ngeen ko ba. loolu ngeen di doxee nee na wax ji sax lu ci bëree bëri yaakaar na ne xam ngeen ko ba moom ngeen di doxe mi ngi gën a sant yàlla bu baax a baax a baax nee na mi ngi ciy gën a sant yàlla baax a baax leen gën a ñaanal bu baax a baax nee na di leen gën a ñaanal bu baax a baax nag suñu borom mii dafa ko dindi ci barkeb sëriñ Touba suñu borom mii dafa ko dindi ci barkeb sëriñ Touba borom gën leen a tax nag tawfeex sëriñ Touba suñu borom gën leen a jàpp ndanal tawfeex sëriñ Touba ci lépp ci seen lépp noonu noonu rek la demee. nee na noonu rek la demee. di ci am xel bu daal bu baax. di ci am xel bu daal bu baax. ni ñu ko ñaanalee. ni ñu ko ñaanalee. di ci rafet njort bu baax a baax. di ci am rafet njort bu baax a baax. jërë ngeen jëf. nee na jërë ngeen jëf. doxin wi xebatuñ ci dara. nee na doxin wi xebatuñ ci dara. te itam naw nañ leen. nee na naw nañ leen. nee na naw nañ leen ci. yéene nañ leen ko itam. nee na yéene nañ leen ko itam. ba ngeen jugee ba léegi. ba ngeen jugee ba léegi. noonu rek lañ ko bëggee woon. noonu rek lañ ko bëggee woon. seen seen xel ak seen xol yëpp. seen xol ak seen xel yëpp. ngeen ginnaaw bu ngeen bu ngeen wéetale yàlla ba noppi. ginnaaw ba ngeen wéetale yàlla ba noppi. ngeen ngeen def ko ci jaamu yàlla liggéeyal sëñ Tuubaa. ngeen def ko ci jaamu yàlla liggéeyal sëñ Tuubaa rek. loolu loolu loolu. daf leen di daf leen di gàttandu ci lépp. nee na loolu daf leen di gàttandu ci lépp. day yombal doxin wi. day yombal doxin wi. day tax bar day tax bu barkeel. day tax mu barkeel. lépp di gën di defaru. ba lépp di gën di defaru. ci biir ak ci biti. dëggal moom ak jaamu yàlla bu bu jugee jaamu yàlla bu ci dëggub dëggal. nee na jaamu yàlla bu jógee ci dëggub dëggal. lépp lépp ak defar rek la. lépp ak defar rek la. day defar day defar nit ki ci àdduna. nee na day defar nit ki ci àdduna. rawatina alaaxira gënu jëm. rawatina alaaxira gënu jëm. noonu rek la ngeen góorgóorlu bu baax a baax. nee na noonu rek la ngeen gën a góorgóorlu bu baax a baax. yëpp ñu def ko ñu jëmale ko nee na. sunu xel yëpp ñu jëmale ko. nee na sunu xel yëpp ñu jëmale ko ci sunu borom. ak sunuy xol ak sunuy xol. ak sunuy yitte ak sunuy yitte. waaw mooy loolu mooy xasdu wajhillaahi. nee na loolu mooy xasdu wajhillaahi. jublu yàlla rek la. jublu yàlla rek la. jublu yàlla rek. jublu yàlla rek. rek mooy mooy li ci am solo. nee na loolu rek mooy li ci am solo. nee na ginnaaw jaamu yàlla ndigal ak tere la. nee na ginnaaw jaamu yàlla liggéey ndigal ak tere la. luñ ci mën rek ñu nekk ci. luñ ci mën rek ñu nekk ci. bëgg lu baax di bañ lu bon. ak bëgg lu baax di bañ lu bon. loolu moo di taalibe rek. loolu moo di taalibe rek. noonu rek lañ kon nag sax noonu rek la demee kon nag sax ci ndigal. bàyyi tere bàyyi tere. bëgg lu baax bëgg lu baax. bañ lu bon te yàlla tax loolu rek mooy tax loolu rek mooy tax jërë ngeen jëf. fajutalil yawma bi xayri minani wa qudutani ila ibtifaa'i sunani min baadi ma kaajam ci daawu naasi yudxiluni fi sarakil qannaasi salaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokk jullit yëpp mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu baax di leen saare euh, seen mbokkum taalibe Yusuf Al Xayri euh, daayira Adabul Mardiya féete ci université maa ngi leen di nuyu di leen saare bu baax di ñëwaat rek mbégte ak cant jëm ci ziar bi ñu defoon tey suñ borom defal ñu si fii ak xéwal yu yaatu nag. ndax bañ ko nosee ba yàlla defal ñu tawféex ba ñu gisee sëñ bi ba jébbal ko liggéey bi loolu tawféex bu rëy la loolu nag lañu la ñu amul kàddu lu dul kàddu cant waaye nag cant gi day tàmbale ci sëñ bi eh, ak sëñ xaadim mi nga xam ne moom la sëñ bi booleel eh, def ci taxawaay am solo ak sëñ Muntaxa Géey ak njabootu sëñ bi yëpp rek te ñu nekk ci kër gi. dinaaw loolu tamit ñu ngi sant eh, mbokk taalibe yi nekk ci daara ji jëwriñ yëpp ak daayira yi nga xam ne ñoo féetee ci yii Kaolack yii mbuur yii féetee bitim réew jëwri ñoo yëpp ak mbokk taal bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ak di leen sant bu baax euh, kàddu yi nag daanaka du bëri sax ndax sëñ bi moom wax na lépp te te cantam moo ëpp solo ndax nee na xelam dal na xolam sedd na te diir liggéey bi doxin bi nee na gis na ni liggéey bi def na jéego gu am solo tey kàddu yooyu la wax. loolu nag sunu tawfeex képp la ndax loolu moom rek moo ñu fi bàyyi di am cant sëriñ bi ak mbégteem loolu nag moom dañ ciy sant sëriñ Muntaxa bu baax a baax euh, waaye kàddu yooyu damaa jàpp ni kàddu soññ képp la kon boog euh, tey sëñ bi daf ñu soññaat waaye soññ googu euh, daañ ko téye bu baax fonk ko bu baax ngir xam nañu mooy sunu njëriñ ndax dem na ba ni ñu liggéey boobu de boo lañ ci yàggee nekk da ngeen di noppalu bu baax a baax kon loolu am na solo te sant nañ ci mbokk taalibe yi yëg-yëg bi nag mooy mooy mbégte mu rëy ndax di nos mbir ba yegg ca ba jébbal ko Sëñ Tuubaa loolu loolu rek moom mooy sunu mbégte di nos mbir di nos mbir ba jébbal ko Sëñ Tuubaa loolu rek mooy sunu mooy sunu mooy sunu xéewal mooy sunu tawféex kon loolu ñu ngi ci sant ñëpp di sant mbokk taalibe yu baax taxaw bi nag moom duñ ci dikkaat ndaxte di góor di jigéen di mag di ndaw ñëpp taxaw nañ ci ñëpp taxaw nañ ci bu baax a baax loolu kon ñu ngi leen di sant bu baax seen taxawaay ak seen ak seen ak seen passif kon kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi sàkkuwaat nag di ñaanaat mbokk taalibe yëpp ñu góorgóorlu gën a fonkaat liggéey bi gën ko jàppaat ndax sunu njëriñ képp la sëriñ bi daf ñoo bëgg a dimbale xamul ban yoon la ñu koy jaarale mu defal ñu ko ci lii kon sunu tawféex la sunu mbégte la nañ ko fonkaat baax bu loolu weesoo nag fi mu toll ni damay damay damay profité ci lii di woo mbokk taalibe ci màggal gi murit màggal gi yegsi na te jot na sëkk naka jekk heure bu ñu jógee ci ziar màggal gi lañuy ñuy kon maa ngi woo mbokk taalibe bu ne màggal gi moom mooy sunu warteef mooy sunu lépp kon lii moom weesu nañ ko ziar bi nii nii weesu nañ ko ñu ngi ci màggal gi kon bu ci kenn xaar kenn ndigalu kenn ku ne la si Serigne Touba ci kenn mbokk taal bi bu ne kon waa daara ji yàgg ngeen xam seen taxawaay yàgg ngeen ko def na ngeen ko bàyyi xel te waajal ko léegi ndax màggal gi moom yegsi na ba noppi desatul dara kon maa ngi maa ngi sàkku ci ñëpp sàkku ci mbokk taalibe ñu bàyyi xel loolu te góor góorlu ci bu baax a baax a baax a baax. ndax loolu moom mënut a ñàkk te moo ñu fi dese kon kon màggal gi egsi na nañ ko bàyyi xel dañ ko daañ daañ ci woote assemblée générale nos ko ba lépp lu ci war ñu def ko lépp lu ci war ñu ànd ci bu baax a baax kon loolu rek moo ci am solo ñëw rek lañ ci bëggoon dikk bu baax a baax ñoo ngi ñoo ngi santaan nag bu baax di amaan mbégte bu baax sant mbokk taalibe yëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi doon jëwriñ yi bu ñu limee ñuy jum waaye taxawaay bi seede na ko mote na ko ndax jëmm yi ma séq rek wane na liggéey bi ñoo ko bokk te saa su ñu ngi koy ànd rawatina ñi nga xam ne saa su ne bu ñu bu ñu bu ñu lu ñu sori sori seen xel day nekk ci liggéey bi loolu ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ñoom ñoom ñoom ñoom suñ Muntaxa Faal ñoom ñëpp seen taxawaay ci liggéey bi am na solo ak ak ñeneen ñi ndax bu mu liggéey Muntaxa day mën a yóbbaale ñi si des ndax moom mooy jëwriñu mbokk taalibe bi yëpp kon loolu am na solo kon ñu ngi leen sant ñëpp di leen gërëm bu baax salaamaaleykum wa